asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi ñuy seetaan di ñu déglu ci seen site internet bu Thiès 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu kilifa gi muy Alaaji Mbay Sàmb di sunu xarit di sunu soppe di nuyu sunu caméraman bi ñëw ak di technicien bi en même temps di Maxtaar Jara di ko sant bu baax moom itam di gërëm ñi ñu toogandool muy grand sëriñ ak euh, oustaz Mohamed mbay ak oustaz Mass Fall ñu àndandoo rek ñëw pour waxtaan ci lu benn xew-xew buy dëtmal muy guddi gu mag guy amee fii ci Thiès muy le treize octobre incha allahu taala ñu ànd ceeg suñu coordinateur muy El Hadj Pape ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo bokk liggéey bi di ko saytu gàmmu gi nag euh, yàgg nañ koo def dañuy def at mu jor rek. ñu yokk ñaari parrain benn bu góor benn bu jigéen boo seetloo ñu ngi commencé woon ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam euh, dem ba ci Abdullahi baayam ci parrain yi la bokk Aboubacar Saddiq ci parrain yi la bokk li nga xam ne moog yeneen bi daan ànd Seydina Omar ibnul Xattaab ci dëggoom ndax wax naa ñoom oustaz Mohammed ne leen kër yonent bi kenn ku ne ak lala may la nga am bu dee Abdullahi sell la ko may Muhammad marra ala mraatin tuddaa bi Fatimatin tabxil mamaala ilayha wa hiya lam turami mm-hmm. Fatimatu bintu Murin benn jigéen la bu bari woon alal nekk commerçante bu magit waaye mu dégg yonent bi rekk bëggoon ko jur mu dégg ñuy tuumaal ko Abdullahi ni mooy doon baayam ndax ñoom dañ daan dem ca arraafoon yi mooy xamkat yi ak saxaara yi muy jabarkat yi di leen laaj ñu wan ko ne ko daal Abdullahi yaakaar nañ ni moo ko war a jur bés mu ñëw gis Abdoulaye dik ko daal ne ko dama bëggoon man ak yow ñu njaalo ma jox la téeméeri voiture yu bees tàq jox la cent millions joxaale la sama bopp bàyyi Mouhamad lañ ko wax ña doon regg ba tey ñu ngi regg waaye ñu doon xiif ba tey ñu ngi xiif fii ngay gis Mohammed nit ñëw ne gor la ñu jox ko un million wala cinq million mu weddi boppam alal du jënd nit ndax nit a ko defar ndaw si di ko cent million cent voiture ak joxale ko boppam ti mataar ndaw si dafa rafet mm-hmm. ñëpp ko soxla waaye boo xasee regg doo soxla dara Serigne Cheikh nee na góor gi maxtaar caam da ko noon si mm-hmm. ndox mu sedd li muy neex neex bañ a mar a ko dàq mm-hmm. mu ne ko ndawal li muy neex neex bañ a xiif a ko dàq loo xiiful neexul loo marul neexul Abdoulaye rejeté ko delloo ko alal ja delloo ko oto ya posé ko question ne ko fa kayfa bil amri ledi tabqiinahu man kii ma dendal may jàngale noonu di teg sama loxo ci kawam mais waxuma la ne Abdoulaye daa teg loxoom ci kaw ndaw si damay leerale noonu mu laaj ndaw si ne ko dama lay laaj lu xew lan moo tax man nga jël ma sible ma rek sàkku jox ma téeméeri gëlëm bu dee ci jamono ji muy oto téeméeri million bëgg maa jox sa bopp léegi dama bëgg nga leeral ma lu tax loolu ma doog a xam mu ne ko nag dama dégg ne yaay jur yonent bi ñëw mm-hmm. te su ma sañoon di ndeyam di yaayam mu ni ko ah, baax nga ne waaye réer nga ndax yonent boobu boo ko bëggee jur juree ko jurin bu bon baa wooteem dana baax ku juddoom taq naka lay woote ne ko nag ma wax la lenn fa kayfa bil amri lidi tabqiinahu foofu la wax ja commencé loolu la dugal ci lii bu ko defati mukk ne ko xanaa xamoo ne yaxmil kër yi mu def nii yaramam ne ko yaxmil kër yi mu irdahu wa diinahu nit ku baax day sàmm deram bul bañ ko la joxoñ waaye bu muy dëgg mu ne ko nit ku baax day sàmm deram bañ ñu wax ca safaan day sàmm ngorom bañ a dundee safaan ne ko sama der nanguwul ma njaaloog yow sama ngor mayuma ma lekk alal ji ne ko bi ci des euh, xanaa xamoo ne fël xellu laa la fas sa biinawu fii lu bon xaju fi kaaba gii laa laa la kaaba gii bërëb bii njaalo fi xam nga ne jekku fi ne ko ñett yi nag bu dajee amal xaraamu fal mamaatu doonahu gis nga buñ la tëroon fële nga jaaxaan summeeku ba set ñu jël paaka jox ma ne ma naa njaaloog yow baa ñu rendi ma ma tànn ñu rendi ma mais du njaaloog yow kon jëli million du tawax seetal ki tànn dee Muhammad mu gënal ko mu ni ko bu booba ma tànn dee moo ma gënal njaaloog yow Mohamed ruq boo am na jàngukaay de fi réew mi toll ci yenn doom aadama doy di ñuy def yenn ñàkk fayda yi bu ñu xoolee ci bàyyi Muhammad te kii booba booba ki ñu war a yónni juddoogul moo ko war a jur moo war a jur ki ñu war a yónni muy Abdoulaye di bàyyi Mouhamad ñu jóge ci mu yedd ndaw sa baloo ko lu bon keroog la Fatima gëj a xalaat lu bon ba mu ci jógee dafa wax ni loolu dafa nekk piqûre buñ ko piqûre mu nekk ci moom ba mënatu koo bàyyi kon tey mën nañ ne bàyyi yonent bi actualité la seetal bëgg alal gi xew xoolal bëgg xaalis gi xew ñoom Babacar Sow ñiy jëli gaay yi léeg-léeg ñu jëli nit koo xam ne dañ ne ko waaw loolu dugg loolu yóbbu ci diw muy wax ay naxasa xandang xaalis dong nga ko fa yóbbu nga ne satir ne lu tàng dem bàyyi maas dem ci grand sëriñ mu ne non xam nga grand sëriñ nangam. fekk dara c'est faa. ngóor li muy rëbëje moo bëri. yoroo ci. li mu yàq bari na de. c'est faa. bëri na dama ne la bëri na bëri na. koo xam ne bàyyi na la mu nekkoon. lii moo tax lii. Matar. fii la bàyyi yonent bi delloo. téeméeri million. téeméeri voiture. ak tëdd ak jongoma jooju. mu ni ko lii ñun ñoo ko defar araab yi. nit li mu defar du ko def jaam. merci beaucoup. su dee lii yàllaa ko bind teralee ñu ko. Mm-hmm. teraanga du toroxal boroom merci beaucoup. Mm-hmm. moo tax ñépp xeeb leen kii xaalis. mag ñi dañ daan wax ne wéet gore wéttale ko gore. Mm-hmm. góor googu ci ñun tuddee bés bi la bokk. fii ci promenade di Thiès wa 13 octobre incha allah. ku koy bàyyi Mouhamad ci parrain yi la bokk ka ca topp di Babacar Saddiq euh, Babacar Saddiq gis nga yenent bi lu lu bëri bu ko yàqulewul Babacar la moo jënd Bilaal indi ko ci lislaam may ko yenent bi nekkoon ni jullit di bilaal moo ko dafa fekk ñu koy fitnaal mu jënd ko ci sangam ñoo jox ko yonent bi Ababacar moo dugal ci lislaam Usmaan ibn Affaan saxaabu bu ngand boobu nga xam ni denc na ñaari doomi Muhammad muy Roqaya tugu mu Kalsum moo dugal ci lislaam Abu Ubaydatu Aamir ibn Jaraax moo nekkoon général de guerre Muhammad bi yonent bi faatoo Eh, te Ababacar toog mm-hmm. bi Ababacar faatoo mm-hmm. ci jamono Ababacar Xaalid ibn Walid fa nekkoon mm-hmm. bi Ababacar faatoo Omar jël eh, eh, xilaafa gi ci la yónnee lettre booba ñu ngay xeex ak ya mu yónnee lettre ca ñoom ne folli na Xaalid ibn Walid fal na Abu Ubaydatu Amir ibn Jarrah Xaalid lànk ne du jàng lettre bi def ko ci poosam xare ba xare bi jeex ba ñu gañe xare bi mu doog a lire bi ci mbooloo mi ne weer sàngam dat sàngam ci la Aboubacar Sadiq faatu Omar ibnu Xattaab ci la toog ci xilaafa gi booba la ma folli woon fal la yow Abu Ubaydatu Amir ibnu Jara laaj bi jaru ko maa koy tontu li tax liiruma ko ci jamono jooja su ma folli koo fal gu dugg mën nañoo uute ba ñu gàñe ci guerre bi ma denc ci lépp ba guerre bi jeex jéggal ma li ma jiite ci sa kay nag kii du xëccoo kay jéggal ma li ma jiite ci sa kay waaye bëggoon a defar dong ma ci dugal abu ubaydatu jóg ne ko ngor gi nga amoon ba ñu la jiitalee xaadima ne ko ngor gi nga gi nga amoon man Xaalid ñu jiital ma nga topp ma am naa ngor gu ñu tool dinaa topp sa kaw démb neexoon na di démb ngoro doon lëmbi ci pinc mi waaw koo koy Aboubacar Saddiq moo dugal Abu Obeydatu moo dugal Ousmane ci lislaam kooku ci ñuy tuddee gàmmu gii ci la bokk muy le 13 octobre incha allah ci promenade de Thiès Seydina Omar topp ca Babacar ne naa li ko may secret mooy defer kilifa ku ko bëgg danga koy deferal Eh, Omar ñëw ñu tuddee ko Faaruux bi lakk gi amee ci Madinatul Munawara ñu ñëw wax ko ko dafa bind lettre rekk ne kullama awqadoo naaran lil xarbi atfaaha la ne ko boo demee joxal ma ko safara wi jógul fi tëdd de tëjee ko innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna aqwaykum safara wi jaam nga jaam leen ti yàlla nee na jaam day defar du yàq ñu sànni fa lettre ba safara wane kamaj dëggoo ma ko ko may si naaw ma mas nay coow ak jabaram soxnaam ñoo fekk ko ci wàññi rek mer di ko xool di ko xool ba taal ba ne kamaj ndaw sa daw wéeru ci sàkkilu Omar dafa mer di xool safara wi di ko day wan ndaw si ne ko xamoo ma duma la laal di ko xool ba safara wa ne kamaj fay ci la doon bax dañ Omar ne wërit keroog la ko ndaw sa gëj a laal tudd eh, niilu misra dañ daan def at mu jot ñu jël xale bu jigéen bi gën a rafet jox ko dex gi mu lekk ko mu doog a mën a daw ci jamono Muhammad lu ko jiitu ba ci Sidna Muhammad ba ci Aboubacar ba ci Sidna Omar ñu ñëw wax ko ko mu ne ah bon ñu ne ko waaw ah. mu ne ah moom lu mu wax ñu ne ko dex gi de dañ koy jox xale bu jigéen bi gën a rafet mu rey ko doog a daw mu ne wool ma Mbay Sàmb wool ma Sey Laatir wool ma Satirne wool ma Euh, Mouhamed Aydara mm-hmm. wool ma Mouhamed Ndiaye mm-hmm. wool ma euh, euh, ki ci TFM déedéet suñu si mu nekkoon Sud FM waaye xale bu dëgërwaay bàyyi aale ñaa wool leen ma ku dëgërwaay mm-hmm. waaw di xam li muy wax woo leen ma leen ñu ne ko looy def mu ne point de presse ñëwoo gouverneur mu ñëw mu ne gouverneur lettre bii laa bëgg mool yaa nga ca dex ga toog dex gi ne du daw tànk joxuñ ko xale bu jigéen mu rey ko yóbbul lettre bi ngeen joxal ma ko dex ga ne ko Omar la ko jox yamal foofu la bul wax amiir bul ne xalifa nel Omar sama baay tuddewu ma amir tuddiwuma ma xalifa Omar la ma tudde ñu jël lettre ba <laughs> journaliste yi nag yuuxu fii la bët yam nag nit kuy bind ndox lettre ndox ak lettre nag coow li nu nomb gouverneur ñu ne ko loo ci xam mu ne xanaa def li wax. yii Omar waxam santaane def rek bàyyi noonu ñu départ dem journaliste yi daar ko kër kër kër pour mu teg lettre bi ci dex gi c'est tout un problème police bi ñoo ñëw e, e, e, écarté ni ñi escorté ko Omar Amirul euh, nu mu tudd gouverneur wuti dex ga nag bi mu yegsee ne ko Omar la ko jox ne ko ca bàcc rek dex ka départ keroog la gëj a taxaw ba fii may wax ak yow Omar def ca ne ko boo dawul dama lay sëkk yow yaay kan ba ñu lay jox nit kii mooy amirul moominiin ci ñi ñu tuddee gàmmu gi la bokk ñu koy defee fii ci promenade de Thiès sirru Omar muy dëggu sirroom mooy dëggu ñu tuddee ko faaruux gis nga dëggu dafa baax Saturne dëggu dafa baax maxtaar ji nga métier boo ci dëggoo danga ca am lu sa patron amul soo ca dëgguwul doo teqali ko doon surga ba ba ngay dee parce que benn dërëm bu lew moo gën milliard bu lewul Omar ci dëggu la séddoo li mu séddu Seydina Omar ci parrain yi la Ousmane topp ci xam nga lu doon secret tabe joxe ci la ami li mu am yépp Seydina Ousmane bi ñu demee ba am problème mu ndox ñoom jullit yi juif yi am problème mu financement gis nga sunu borom juif yi moomoon forage bi. Mhm. ñu privatiser ko. Mhm. jaay moitié bi Ousmane jënd ko jox ko yonent bi waaye defu ci turam mhm. dañoo def ci ginnaaw Muhammad Muhammad ibni Abdallah parce que booba d'accord yu ne Rasulullaay la. ñu bind Muhammad ibni Abdallah. Russie bi moo ci ne ñu envoyé ko ko. yeneent bi jox mënul liir Muhammad mënta liir mënta bind man di gis naa senegal nit ñu naa fekk ñoo xam ne bu yeneent bi mënoon a bind ñu génne mbir ne moo ko bind man gis naa ko fi ci réew fii réew mii ñeme nañ lu ne ah te léegi-léegi ñu wane dara ne la di kilifa saa nga ma ko wax yàlla ne ko doo ko fi liiree doo ko fi bindee mu jox ko Aline mu liir ko dañoo privatiser forage bi ñu ne yaa jënd genn wàll gi mu ne déedéet ñu ne xalaat leen ñu ne jarul xalaat kii Ousmane dong ko fiy def yu mel nii. moo tax xam nit xam jikkoo ma ko gën. ñu ñu ne nag léegi ginnaaw Ousmane jënd na ko xamaguñ ba tey ku ko jënd nu ñuy naanee ñi seq ndox mi waxtaan ñu ne jullit dañuy root tey bu subaa yéeféer yi yahóod yi root ñu ne ok. ñu dem ba mu yàgg doomi juif yi di tuub ñu ni Muhammad da cee sotti njibar hmm. ñu ne dañuy jaay li des ci forage bi hmm. Ousmane jaar ca ginnaaw jëndaat ko ñu defaat ci rosi di turu Muhammad hmm. indil ko ko Aline liir ko ne ko ah nee nañ jënd nga la ca des mu ne jënduma ko de ñu ne kon de Ousmane lay war a doon bi ñu toogee ba jot ci te eh, forage bi di jaaxle ku ko jënd ci la Jibril ñëw ne ko sa goro bee Ousmane um naa ko jënd fekk Moustapha ne manishtara bi réew ma fa lahul jànn teen bi réew la tuddoon mu ngi mel ni ñu ne samsam teenu sam mu ne ku ko jënd ci la sa aljana aju Ousmane jënd ko muy benn te denc na ñaari doomi Muhammad muy Roqaya ak Umu Kalsum Ousmane mii may wax Ababacar ko dugal ci lislaam moo ko tuubloo gis naa nag ci réew mi eh, Maxtaar gis naa ci réew su nit tuubee dugg ci lislaam ñu koy wëral réew mi mel ni kooku jébbalu ci yàlla daa jomb yàlla yëfi tappale yooyu mooy lan yàlla bind la nga xëy del ci ne ko yaamam moom Muhammad nga yónni ci man nangu naal daa jaruwul réew mi ak di ko campagne di ko duufal ak di yuuxoo ko dof doflu dara da ci wérul yàlla lu ko jomb moom moom lépp boroom kër ganaar gee ni dungu ñu lakk ko mis yu bee ni dungu ñu lakk ko xar yére taxaw ñu lakk ko laax bu neex bële sombi meeg yépp bu ko ci neex lekk moo ko moom bu ko ci jomb. yàlla nga ñëw ne ko yaafi ni yonent bi nga yónnee nangu naa daajar jar wëral nit ki réew mi lu ci rëy lan moom kay moo war a wër réew mi di kontaan. mu mel ni ki tuub dafa jomb yàlla mel ni ki tuub dafa jomb yonent bi boo seetloo boo seetloo am na lu ñu envoyé ci warsa bi defe woon ne benn kilifaa dugg ci lislaam am na fan yi xaw ma seetlu ngeen koom déet gars yi di ko ngandal di ko yónnee fekk déedéet ab jullit euh, mooy mooy sànni jàmbaraam faiblesse boobu pour la yàlla lu ko jomb. moo Mouhamed mbay bu manee toog ma ñëw sukk ci kanamam jox ko sama bopp Maas jox ko boppam kii grand sëriñ jox ko boppam Pape Gueye jox ko boppam Satani jox ko boppam te muy jaamu yàlla ñu ñëw jébbal ko suñ bopp te taxul mu tiitaroo ko kon bu bu nit ñëwee jébbal boppam yàlla luñ ciy tiitarooti mm-hmm. lu ci rëy lu ci moom dafa yomb mm-hmm. ku tuuti lu rëy ci moom dafa yomb waaye ku rëy dara tuuti euh, dara rëyul ci moom mm-hmm. boo rëyee lu ñëw tuuti ci yow sëriñ Abdou nee na li ma gën a jaaxal Serigne Cheikh dama daan jaaxle jaaxle ba dem wax ko ba koo gis mu ne ma ñëwal nee na su ma ñëwee mu di ma déglu may wax ba yeggal mu ne ma asi lii rek la asi ëpp nga lii dama defoon leneen la nee lépp daanu ba tuuru jeex tàkk ma oyof toy asi ëpp nga lii daal ñu ñaan nee na mu jeex am na koo xam ne dara réyul ci moom mm-hmm. yàlla nu jaam di tuubee ñu ko koy réyalal jàmm moo war a sant boromam. ay il ñu wëree ko ci conférence yi dem fee dem faa yàlla lu ko jomb tim moom lépp mm-hmm. yonent bi lu ko jomb tim yàlla yónni ko ci ñun mm-hmm. moo tax Seydina Ousmane Jibril ñëw ni ko Ousmane ko jënd mm-hmm. yonent bi def ni ñaari baaraamu ne ëllëg aljana maag nii ku soxla soo may laaj bul ne ana Muhammad neel ayna Ousmane wax naa léegi bi ñuy def émission. Mm-hmm. naa leen baatu ana arabe la di sàttin. maataar mm-hmm. arabe la de. baatu ara ayna olof ne ana. Mm-hmm. ayna Pape Gueye nga ne ana Pape Gueye yow. fekk baatu arabe boo yàq la ana arabe la mooy ayna far nga yow ne ana. fa Pape Gueye mu ne ku ñëw di ma laaj waxal rek ana Ousmane bu ne la maa ngi ne ko ay na Mouhamad dana ma la wan lu ko ko may tabe kon alal yi ñu tour grand pour lan ban njëriñ la am yi ne fi di sonn oustaz yi nekk fi boroom xam-xam yi ne fi ilimaan yi ne fi jumaa yi yeggul ne fi daara yi yeggul ne fi ñi amul fu ñu dëkk ne fi maladie ci hôpitaux yi ne fi amul lu ñu fajoo handicapé yi ci mbedd mi yelwaan centre handicapé nga yor say milliards ñu di la tuddee bés ca grand théâtre nga ñëw ànd ak sa gàngoor waaye la ma sama waajo waxoon dafa ne mag yi nga gaay bi ñuy joxe damaa téye sama wàll benn yoon laa joxe dama ko weccee ko waat waaw damaa weccee ko waat par dix mille la ñu waxoon ma defaat ko ay deux mille rek di dóor ci suuf la ca des yëpp ma yóbbu ko sama kër mu ne mooy itam ñàkk fay di ko Iran loo xam ne safara laa jëm kay bàyyi ma lekk ko fi benn yoon rek. di fi tappale yooyu Ousmane looloo ko may li mu am. xare boobu mu dajale ci nangami gélem nangam ci ngànnaay nangam ci milliard jox ko yonent bi jël kaala def ci baatam jox yeneent bi ne ko lépp jox naa ko yàlla kooku ci ñu tuddee bis bi ci la bokk muy le 13 octobre ci promenade de Thiès képp koo xam ne jullee seewoo fi tàkkusaan mën ngaa bañ a am place yéenent bi yëpp na ko de match day am gars dem stade fanaani mm-hmm. làmb am yi fajaru dem kon yenent bi buñ ko tuddee bis ci promenade de Thiès fi fii fu nit ni ci àdduna bi war na laa jaral nga fàq ñëw fekkee si daje bi moo xam nit nga moo xam jinne nga moo xam malaaka nga ci invitation ci invité yi nga bokk waaw Sina Ousmane ci la bokk alim naa bi taalim ñëw di ñeenteel xare buñ mas a añ gañe moo ko tax moo tax ñu gañe ko xeex na midi commencé koo xeex ñii ne avant miti di xeex ak benn yéefe di xeex ak moom di xeex ak moom di xeex ak moom ba quatre heures moom ba cinq heures moom moom ba sept heures moom moom ba timis ji dugg yonent bi daw dugg ci lëndam gi Omar xëcc ko mm-hmm. ne ko kandang kandangi jaas yi mën nañ laa rey mu ne euh, Ababacar xëcc ko mu ne ko bàyyi ma mm-hmm. ñi ma amoon ñëpp rey nañ leen àll yi laa dese buñ ko reyee fu ma jëm mu ne ko yàlla du la toroxal defal ndànk naka la Alioune song yéeféer bi rek pàdd ko mu daanu mu jël jaas nar koo rey yéeféer bi ne xaax ne ko tufli ko àll yi ca xar kanam Alioune wàcc ko ñu song ko ne ko lu la ko teree rey mu ne bi ma tuflee sama bakken laa yëg yëgatuma sama borom te su ma ko reyoon sama bopp a tax ma rey ko nangami waxtu duma ko xeex di rey di rey nit ci ay minutes ndax sama bakkan dama koy bàyyi xeexaat dama ko bëgg a rey ngir yàlla muy Omar Wudd mu songanteeg moom ñuy dem di dem di dem boobu timis jot ñu dégg Ali ibn taalib di kàbbar ci jaww ji bi mu kàbbaree rek la ko song Omar Wudd di ko tiin di ko xool fu mu ne rek mu dóor bopp mu naaw Aline capté bopp bi jël jaas ji roof ko ci loos wi toog ci diggante loos wi jaas ji di xaar pënd bi daal Moustapha déggatul lu yëngu daara yëngu lépp ne teg mu ne ah baat dañoo rey Ali bi poussière bi wàccee mu seen Ali ca kaw deret ji roogalaat Moustapha uuti ko Aline tëb cëpp song yonent bi akolaat ko jibril ne ali ni Moustapha xoolal mu téen nekk jaww jéeb ay malaaka la mu ne ko jigéen aljana ñëpp àllin leen doon supporté sa borom nee na nga laaj àllin lu mu gën a bëgg mu defal déglu leen li may wax na lu mu gën a bëgg mu ne ko waxal yàlla mu delloo si tisibaar ma julli ko ci waxtoom ndax inna salaata kaanat alal mu'miniina te dama caa bëgg bokk kitaaban mawquuta yàlla nee na ñi ma gëm julli dama ko wutal waxtu bu waxtu wa jotee ku julliwul gëmoo ma te amoo ngaan demal julli ji kon na waxtu wi ñëwaat ci heure am ma julli yàlla ne yonent bi laajal jant bi fu mu ne dana génn mu ne jant bi foo mën a ne génn sa kàttanu borom jant bi ne ñoxeet yonent bi di ko def nii ba deux heures et demi deux heures jot alin liqa kabar julli ko dal sëlmal am noo xam ne bu la ko yàlla mayee booy julli teewlu ko bi mu sëlmalee ne ko tàkkusaan na bi wàccelu jant bi ba ba cinq alin li xam julli ko mu ne ko timis mu juñu jant bi mu soow timis jot mu julli ko dóor géeyam mu ne ko yàlla nee na nga wax leneen loo bëgg mu ni ko lii dong laa bëgg lim bëgg laa bëgg te muy jullil ko ci waxtoom jibril ne ko sa borom nee na alinde xare bii mu def tey ak ñi mu ci àndal donte am na ñu xeexul bëccëgu tey bi ngont li guddi gii yàlla nee na dëgg na ci ñoom ñëpp danañ ci texe ah benn billet cinéma mën naa yóbbaale invité invité d'honneur <laughs> am déet am déet benn série cérémonie benn benn benn invitation d'honneur mën na yóbbaale groupe ñii lañ tuddee guddi gi xam sa gis nga ko oot lañ ko reyee régime Bilaal moo daan noddal lislaam ne naa la yonent bee ko jënd Jaafar moom lañ daggoon ñaar loxee demal ca samax maq drapeau ba dem ñu monteel ko laafi malaaka boole ku malaaka yi muy doxal yàlla service mooy parrain bu mujj bi ren Jaafar bu dee ci jigéen ñi muy aminatu yaayu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mariam sayyidatuna mariam mooy yaay yonti yàlla isa mooy ndeyu chrétien yi moom la yàlla wax ne ko yow mariam de maay lay seede yow mosoo mooy yàlla wa mariama ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa sadaqat bi kalimaati rabbi wa kutubihi wa kaanat min alqaanitin lii la ko yàlla bàkkee soo demee ci alquran yaayu Mariam am na fa saar muy sóoratu Mariam maa ngi koy wax ci Birino Jaata bi mu nelawee Saturne est-ce que xam nga ne poste bi Birino Jaata nekkoon Birino poste boobu mu ne ca Senghor ci Abdou Diouf ci maam Abdoulaye Wade ba ci Macky sàll te poste la boo xam ne jege nga président lool ma soo dégg ko ne Birino ko yàqal mas ngeen ko dégg moo ko jaxaseeg président mas ngeen ko dégg kenn du ne lii ma Birino def ti Birino amoon accès bu toll ci président loolu beneen affaire la. ngay gis fii bëkk néeg boo xam lu taalibe yàqule moo ko yàq bëkk néeg rek ngay cogg boo xam ne mooy topp ministre wala keneen loo yàqule moo la yàq wala ko dem boole la ak président Bruno de pendant des président bu ne mu gén mosoo dégg ndéylum génne génnewul benn secret te xam na lu ne boppam boobu li mu yóbbaale kenn xamul nu mu toll Bruno li mu yóbbu ci secret kenn xamul nu mu toll bindaguñ ci journée ne Birino nee na nangam. gisaguñ fu ñu binne daa xuloog président bi gisaguñ fu ñu binne moo yàqal ministre tel gisaguñ fu ñu binne nee na kii la àndal di sagoo benn événement bu ñu tuddee Birino gàmmoo wala dara mu teew ca wala làmb wala Birino di tiitaru ci benn événement wax naa gars ko am voix am jaay ma ko gisaguma ko voix Birino am nga ko mataar am ngeen ko eh, doo ko gis nii rek xel may dem Birino jaata poste bi mu yoroon ci seen yow daf nga dañ ko war a man dana jaaxal ñu bari li ma ciy wax mais dama am du ma dégg ci dundam bëggoon ñu bari dégg ko te mooy jege kilifa du tax a doy di sa liggéey def la imaamu Ali moo xoon ida kunta fi amrin fukkun fii loo nekkati na la ñor nekkantu baaxul birino amul caaxaan mësumaa gis fu mu reetaani protocole loolu la laaj chef d'état dafa am caractère boppam chef protocole am caractère boppam sëriñ am caractère boppam responsable bu ne dafa am caractère bu koy gunge mais ne ngañ ñi rek birino du mer mais doo ko dégg mu wax te li muy def loxo yi rek ay def cër céri rekk ay dem mu nekk ak Senghor ba jóge fi déggaloo ko dara lu ñaaw déggoo ko fa yàqal déggoo ko xulool déggoo ko joteel ba Senghor dem moog Abdou Diouf déggoo ko dégg ko joteel déggoo ko mu fa yàqal ba mu dem moog ma Abdoulaye Wade noonu ba ci Macky sàll dégg ko Macky waxal. te ku ne xam ne ni Pirino xam na lu tukkal àdduna. personnalité bu wàcc Sénégal ci Birino ngay njëkk mu protocole la gis nga boo xamee sa bopp sang ngay doon bëgg naa lool yéen ñu jege kilifa yi ngeen roy ci Birino bàyyi leen boolente bi bàyyi leen jaxase bi bàyyi leen bëgg place gi bàyyi leen yàqante gi Birino mii dund na li mu am ku ko fi am du président de fan yii li mu am li ko jullit yi seedeel sax mën naa ne keneen seedeelu ko ndax rek honnêtetéem dëggoom keroog damay dem yéen yéen laa wax de ci biir conférence bi dimanche bii passé wallahi wal quran góor gu sant mbeng oo ma mbokk la ci euh, imam Sarr bu HLM mu ne ma maa ngi nii kër Birino mu ne ma wax la leen Iran ma ne ko mu ne ma Birino këram duñ fi togg lu lekk lu julli di lekk. lu julli di lekk rek lañ fi togg. mu ne ma lu loo xam ci koog lu ko ëpp a ngi ci moom. poste boobu mu yore ku ko fi yor ci yéen gaa yi ma xam yéen ñii. ku ko ci yor yii nii ku ko ci yoroon àdduna tukki na xoolal Pape Gueye mii rek dañ naan mooy directeur cabinet lu am Thiès moom lañ koy tudde làmb ju ne mu xabar xabar yi jël ñoom Mouhamed Mbaye ñu wër ko ñu naan Pape Gueye lañ tuddee làmb ja moom lañ tuddee sabar ga moom lañ tuddee tànn biir ga seetal loolu birino loo ma sa dégg ñu tuddee ko ban événement nga ma sa gis birino lan la ma sa rocce ko doxal ko boppam lu dul li ko réew mi sant kooku bu ko am réew ñàkkee réew ma ñépp a koy jaalante bàyyi ko xel bëgg naa Birino nekk leçon man maa bëgg mu doon leçon ci ku jege kilifa yéen a ngi nii yow mii di seetaan di ko déglu yaa kilifa gi soreewu leen te yàq nga fi lu bari yaa ngi nii jaxase nga fi diw ak diw jaxase fi diw ak diw yaa tax diw sori léegi yaa tax ñu écarté diw yow mi mm-hmm. yàqal nga ñu bari ti toogagoo palaasu Birima dara sennagul ci réew man de dégguma lenn ñu ne Birima xuloo naag diw moo tax dara kenn amul loo ko waxal xanaa lu baax kenn amul loo ku dul moom nag tey jii ku moom tey jii boo fi jógee mën nañ wax lu rafet làq la ca des wax lii bale waaye Birima amul leen doo gis politicien bu ci wax ñu ne ñu ne ah waaw yow sa diggante amoon ngeen fi problème dégg ngeen ko yéen. dégg ngeen kuñ dékk micro ne ko waaw yow amoon nga fi birino problème waaye nag mu ne waaye nag yàlla moo dogal nangam nangam amul ci birino jaat alhamdulilah moom yàlla suturaal na ko ci post bi ko Sénégal yi dénkoon ba mu wuy ji boroomam amu ci dara lu ko nit di duutee baaraam Saturne noonu nga war a mel Maxtaar mel ko Pape Gueye mel ko Aziz mel ko Iran mel ko Mohamed mel ko Maas mel ko maam Cheikh grand Serigne mel looluy dëgg ku jege kilifa da ngay ubbi yaatal te yem ca la moom bàyyi ñeneen ñu jël seen wàll waaye aaf lépp ku àndul ak man ma jaxase laa kilifa li ma ne ku ci newul ma boole laa kilifa loolu ko baax du ko def. moo tax gis nga liggéey boobu moom la a Ababacar doon liggéey ci kër yonent bi jaafar noonu la xaree ba ñu dagg ay laafam ba yàlla mujj ko def tey malaaka laafi malaaka la ko jox muy ànd ak malaaka yi mu ngi ca samax-maq téere la aminatu yaayam mariam ngi nii am na saar ci alquran te yaay yonent yàlla isa la chrétien moom yaru moom yaru yàllaa leen ko defal quartier buñ nekk duñ tooñ car ab chrétien ngeen li ma naqari chrétien bii la benn chrétien mën naa dëkk ak yow mille la loolay naqari du jógee ci doomam du jógee ci moom. jàmbure nañ du ñu tooñ duñ dugg ci lu seen yoon nekkul te ku ñu dëkkal bu ñu xew lii tibbal la loolu seen jikko man na rajo bii damay toog Sud FM def émission dajeeg ñu wari ma ne sama ngalax dañ may yónni maasa ngi ni waa. Euh, jum chrétien yi fa dañ ma yónnee ngalax mm-hmm. ministre de forces armées mm-hmm. Augustin Tine daf ma yónnee nga lax mm-hmm. xoolal li mu li mu yore yélif armée bi yëpp di jël ngalax di yónnee nit bu korite jotee day jox silla doomu bàyyi mbàkki silla lay jox ngalax mi jox ko oto ni ko yóbbul ko Iran Tiwaawoon am bis mu ne daf may invité ma ne ko nee ko dikku parce que li ma koy tooñ daa bëri te gannaaw moo yilif ñi du ma waatee ko tëjee du ñëw man na ma fa kidnappé waaw euh, euh, su ma xarit la lu xew lu xew lu xew lu xew lu ñu xewle mu yónnee ngalax te catholique chrétien la suñu ziar tam xarit bi ñëw na ca ah ñëw na ca ni mu yaroo gis nga ni mu toogee yënguwul raful deful dara tegaleel loxo yi jataay ni mu toogee ba daje ba tas noonu la Augustin toogee ñoom yàllaa leen may loolu te yaru dafa bokk ci li gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla def ko ni ñi mu bind ñëpp yaa ci gën a yaru yar dafa baax te ñoom yàlla moo leen may loolu Augustin Tine noonu la mel te moo jiite armée bi kooku bu dem bu toppoon euh, bu meloon ni Iran ba mu mel ni Mohamed Mbaye mii defe nga ne xalaat naa maye nga lax xalaatu ko te boo demee këram doo xam ne kii mooy mooy ministre bi yooyu yooyu jikko dafa am solo ci nit waaw donc Sayyidatuna Mariam moo tax ca ca marine yu njëkk la bokk donc ci lañ ko tuddee euh, muy war a doon le 13 octobre Sayyidatuna Khadija mooy aaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la njëkka a denc moom la njëkk a denc fekk na am na yeneen ñaari góor yu ko denc nit la sa kilifa wax rek appuyé loola. waaw xadijatu atix denc na ko hind denc na ko teqale ko nañ Maodo ko bind. mu Muhammad doo ko denc. am ci moom juróom doom. am ñu wax juróom-ñetti doom am ñu wax lu ko ëpp waaye juróom-ñaari wér na. te bi mu koy takk 40 la am. kon ñu naan dañuy ménopause nañ seetaat wax ji. ki am 40 doo ko sët sëy am juróom-ñaari doom ca sëy ba. yow nga bëgg a yàkkam sa sëy naan yaay bàyyil ma sëy bàyyil ma dugg ci Iran ndax bu ma rëccee dootuma am jëkkër du ma am doom Ibrahima am jabar soxna mam Ibrahima. Mm-hmm. mu am téeméeri at Ibrahima am téeméeri at ñu doog a taawlu. Mm-hmm. ñaari cent tiim doom. Mm-hmm. kon waxi tubaab mooy lan. bu dogalu yàlla ñëwee day dandu. mënoo ci dara. xadijatu moomu ci marraine yi la sayyidatuna Aïcha di soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw Xadiija la ko denc moo yoroon daara yàlla ji di jàngale yonent bi ne xuzu nisfa diinakum min haasil xumayra lépp lu ngeen bëgg a xam ci seen diine dem leen ci soxna su leer sële mu xamal leen ko mas naa dégg benn ustaad bu ne ay ay sa da daan xeesal moo tax yonent bi ma ne ko yaa mën a fen ay sa xeesal yonent di tere xeesal ay sa di xeesal da koo sañ wa ma wa ma nahaakum anhu booba est-ce que xeesal daa am léegi bëgg naa neexal jigéen ñëwoon ca conférence ba rek mu dóor loolu hmm. koo fii neexal kenn dafay yor tus ñëpp ci yem yéen ñi ñëpp kenn yoru fi tus yàlla rek a yor doy di baaxul hmm. ay sa moo yoroon daara ja gis nga xadija xam nga lu yonent bi daa da daan wax ne xadijatun ummi baada ummi hmm. damaa defoon ne bu aminatu faatoo dootuma amaat yaay ni ko yee danaa am yaay ju ñuy tuddee Xadija Xadijatun ummi baada ummi wax ko soxna Marème Faye nee ko yaay yaayu daara yi maa ko ko wax ci téléphone mm-hmm. parce que li muy taxawu daara yee tax mm-hmm. yaay du dara lu dul fa la la sa ndey doon defal yow Saturne bi muy dund lam la doon defar mu jóge beneen mère bu la ko defal yaay la rek loolu du ay lu gan du lu ngande du lu ngand déedéet Mouhamed yaayam dundul mu am benn mère bu ko jël doomoo ko di ko taxawu di ko defal loo xam sax bu yaayam dundoon du ko def Mouhamed ñu dem këram mu ñuy présenté kii mooy sama yaay maire mi naa wax na dëgg ne moom de ba yaayam faatoo ba léegi man la def yaay ñu ñun ñoo xam ne kii du yaay Mouhamed. Mouhamed ni li tax ma ne leen mooy sama yaay kii lim ma defal bu sama yaay dun dun du ko def ci man. loolu mooy ndey mooy ku uuf di la defal lu la sa ndey waroon def taxawu la fam la waroon taxaw loolu rek mooy ndey du dara bàyyi loolu la fi sa bàyyi waroon taxaw aar la ka fa taxaw sa papa moo tax xadiijatul ummi baada ummi. Aïcha ñëw di bokk ca marine ya saydatuna faatima mooy caatu Muhammad Fatima lu muy firi mooy ku ñu feral ci safara bëttool mooy ko dogu uuti boromam jaamu yàlla rek ko Zahra mooy ko leer Fatima mësul gis règle mësut a gis règle doomu Muhammad bii mooy caatam mësula am doom ba deret génn mësul wasin deret génn. Mhm. Fatimatu bintu Rasul moo tax ñu ko Zahra mosul génnee deret su yonent bi ñëwaan fekk ko muy nelaw da koy yee jógal julli su fekkee Aïssa muy nelaw mu bàyyi ko ba mu jóg. ñu ne ko lu tax nga yee Fatima ti doo yee Aïssa mu ne Aïssa micc xel la yor te micc xel daal laaj reposé mhm. ndax day jàngale te jàngale kat ci xel lay liggéey. Mhm. ñu ne ko Fatima mu ne doomu leer la jën la ci ndox buy génn di dee kon daa war a ne ci ndox toujours faatima Fatima boobu ci mare nii la su may yata xaroon tareet léeg-léeg ñu def sa waay loo mënul dara yonent bi keroog ba ñuy dagg Sumayya di rey jëkkëram dafa taxaw ne leen awma kàttan bu ma leen walloo te yàlla dogal na ba pare waaye isbiroo ala yaasir maskanakumul jan muñ leen yàlla xamal na ma ne aljana ngeen jëm ñu jël suma yee ne ko weddil yàlla ak yonent mu lànk ñu xar ko rey ko dañ koo xar dóor jaas ci awraam euh, xeej ba mu raw ñu xar ko mu tëdd teg bopp bi def nii allahu waahidun wa muhammadun rasulullah rek di wax te xar nañ ko ba teg allahu wahidun wa muhammadu rasulullah allahu wahidun wa muhammadu rasul nabee nga toog fële di ko xool naan leen muñ leen ñoo wëlbati ko jël yaasir jëkkër ji dagg bakkan bi dagg nopp dañoo bëgg mu saalit gaaw génn dagg tuñ di dagg par benn mu mu muñ rek ku tiim sa jabar ñu rey ko ci ngëm buñ la bëggee rey nga muñ ñu rey yaasir mii jëkkëram song am maar mii seen taaw amaa ne baal leen ma lu ngeen bëgg ñu ne ko saagal yàlla mu dagg ñu ne ko saagaal Muhammad mu dagg ñu ne ko demal yow géeree nga naafiq yi daw jëm ca Muhammad ne ko kat Amar saaga na la saaga yàlla Muhammad ne saaga yàlla wàcce alxuraan ne ko làmmiñ waa saaga mais xol ba saagawul illaa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman mu ne ko dañ koo teg mu àttanul mu wax lu bëggul a wax mais xol baa nga fee dell ngëm moo tax fase buñ la forcé ne la fasel nga fase pase ma tàbbiwul parce que làmmeñ a fase lépp luñ la not def loola ko loola wéyul loo def ci sago la ñuy àtte waaye liñ la defloo ci ñàkk saga not la yow Ameth Mbaye ba nga def ko ñàkkoo loola mm-hmm. waaw su mayee te noonu lañ ko def Halimatu Saadiya moo nàmpal góor gi mm-hmm. yar ko ca kaw ga lu tax yaru àll da lay may fit mm-hmm. day tax nga am jom day tax nga nangoo liggéey soo sàtti ni nga ñemee xooslu àll baa tax boo dee nitu àll dangay ngay ñemee xooslu waaw moo tax ñu yóbbu ko ci kaw ga rabiatal adawiyee nag mooy dernier marraine ren moo daan julli mille ràkka yow nga defe ne xeesal naan fondi guddi naan ruy guddi di wut aw yaram di wutuk pata yée yée pour ne de nekk diriyanke ah moom di saxoo koor di saxoo naafile mille rakka daan julli par bés junniy rakka masta dog koor ba ni mu faatu bi imaamu Shafii feebaree daf ne dama bëggoon ngeen dem wax raabia bu ma faatoo mu bokk ci ni may jullee ndax yàlla yërëm imaamu Shafii laa ponkal moom ñu wax ko raabia mu ne ko ku ko ne moo may njëkk a dee ñu ne ko mu ñoo ko Shafii mu ne ko nee leen ko bu ko yàlla dogalee laa ñu ñëw wax ko mu ne baax na biñ ba Shafii yi dog ñu yónni ci raabia ne ko Shafii yi dog na mu ni kiy jottali na wax ca kaw ndax duma jaxasoo góor ñi na wax ca kaw duma jaxasoo góor ñi lii ñuy def teguñu ko fenn fenn laa wax jottalikat ba yuuxu raabee jóg taxaw yemale tànki ak muuraay ga leer ga jottalikat ba kàbbar rek mu kàbbar allahu akbar ñaan ñu kàbbar mu kàbbar ba kàbbar ya mat bi ñu sëlmalee mu toog ci sajaadaam ne ko yàlla kii fi mu ma teg nekkuma fa sa mbaax ci la njortee ne falaane te newuma fa maa lay ñaan na nga yow yàlla miy matal yaakaar nga jàppale ko ci lim bëgg ndax bu dee man du ko am ndax man melu ma neen koo dégg mu ne man a du moom ana ana lay sa huwa waaja du ne man a léegi léeg ma dee kuñ wane ci télé yi muy bàkku ma ne cam gis nga dinaa la wax lëf tey man maa lay wax mbir tey mataar jàpp ko bu baax sat jàpp ko bu baax man bu ma mënoon a fal nit duma fal kenn suma bopp laay fal dem defari saalum li ma mooy dëgg ku la ne mën naa laa fal day wax lu ko neex danga nga koo jox dara rek. man Iran maa la wax loolu nit a ngeen grand sëriñ day ñëw ne la man naa laa fal te doomam jàng na ba ñibbi si amagul liggéey. ab jarbaatam amul liggéey ab sëtam a ngi ci kër gi amul liggéey te lijjanti na bind demande ba taay kenn jëlu ko lam na lam nar a falee lam la nar a falee na ko defee ay sëtam ak i doomam ah! ku man commencé sa bopp naxante la rek yàllaay fale mooy follee gëm leen loolu tuutil mulka man wa tansiul mulka wa tuizu wa tuzilu bi yadikal xayri innaka jeex na ñii ñooy commission bi ngànk gàmmu gi ak ñëwul ñoo ñuy jot ñooy mottali noonu waaw yàllaay fal mooy folli gis nga boo waree jeexal soo adduna bi yëpp àndoon ne dañ lay wateel du am dara tous yàlla day bàyyi ñu yegg ca watikaay ba mu wëlba seen xol yi ñu wateel keneen dara nga ci manul ku la mën naa laa fal daa bëgg a lekk sab xaalis wër leen laaj ti doyloo yàlla ti xaar ko dem ca quartier bu ñoo xaar yàlla toog fa jeex na loolu rekk la defal li la war rek li sëñ Babacar wax te sañ yaakaar waaye ku la ne mën naa laa fal mën naa laa jox Sénégal gii te doomam a nga ne amul liggéey moom dépense am doyul ab jarbaatam a ngi nii mu bindal na ko demande fu ne jëruñu ko mu ne la mën na laa fal da lay nax seetal bi nga ko seetee bi nga déglu rek yeewu nga waroon a yeewu bi nga ko seetee ñëw ba mu ñaan pare mu naan laa sa kii de sama doom la day jàng ba pare waaye jàppagul ci dara. seetati mu ne mën na laa fal. yow yaa dib dof. ki la ne mën na laa fal ba pare ñaan maa lay fal avant nga jóg mooy la kii de sama doom mooy maam Cheikh. daf si biram gam mooy maam jàngi na ba ñibbi su may amul lum jàpp kii sama doom ma maama ma nekkoon na Cheikh Al suuf ñëw na mais amul lu jàpp kii sama doom lim ba mu yeggal ah ma sañoon na nga jàppale ma ci ñoom waaye yow nga yow nga bëgg maa fal ba pare bëgg bëgg maa ñaan ma falal la. wallaay war ngaa xam ne <laughs> yoroo dara da ngay naxee rek ah da ngay naxee rek kon nag pare eh, pare yaa ngoog ak marraine yi muy 13 octobre ci promenade de Thiessois képp koo xam ne seetaan nga site internet foo mën a ne ci àdduna bi ñu lay ñaan nga fekkee si ko. na ñëpp ñëw teewal ñii fekkee lii waxtaan wa nag dara amu fa ku xam gàmmu gi xam na ko du ñu génn jikko yonent bi ak ñu ñu ko tuddee ba bër set leneen du fa am moo fi mas a nekk yéen ñii too xam ngeen ci dara yonent bi rek ak yàlla ak lañ ñu ko tuddee loolu lañ fay waxtaanee jaamu yàlla jikko yonent bi jeex na boo fajar jot ñu ñaan teqale ko ñu ngi gërëm si internet yi fi ñëw yëpp ñoom Saturne ak. waa mbay Samb ñu ngi leen sant di leen gërëm ak yeneen sites yi nga xam ne ñu ngi koy partagé ñu sant leen gërëm di ñaan nag na ko ñëpp partagé ko ko jot partagé ko mu dem nga uuti ci yeneen bi uuti ci ñuñ ko tuddee ñun li ñu man rek lañ ci def gàmmu gi nag ni muy tëddee dafa am solo mooy la 6 wala la 5 la ñuy commencé tànt bi bis bu jot danañu togg añ reer ndékki mm-hmm. joor moo koy taxaw lañu war a toppatoo lépp féetee na boor li ci des kay mooy ñaan yàlla yegg ci ak jàmm man dama wax ne gàmmu ku ci mere état da ngay fo rek suñu gàmm gi joxuñu ceeb luy ceeb ba nga xamee ne amoo ceeb loo gàmmoo état néew fi pour ceeb dafay ne pour réew mi waaw gàmmoo ngir poosu kenn suñu ko tëlee ba ko wax naa leen ko ñoom ñi naa leen bis buñ demee ba mënatuma ko man banaa lu mu yenn lu ma àtt la may gaañ sama bopp kon nag gàmmu gàngu du gàmmu dara du cotisation du dara ku jot lettre da ngay xam ni ci réew mi nga bokk ñu yëgal la rek. Mhm. loolu rek la yëgal la rek. amul du ma ma doon laaj mën naa lim ñoo xam ne mosuñ waxuma sax yónne fi mais jaar fi waaye mosuñ fi yónne intéressé wuñu bu ngeen gisee publicité bi amul kenn tarixa yëpp a ci bokk. Mhm. ñëpp a ci bokk. waaw ñëpp ci bokk Pape Gueye partagé na ko. bu ko defee daal ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu waaj ko invité média yëpp sur internet yëpp ñu invité leen invité jaamu yàlla yëpp ñii ma lim daal ku leen dégg ti sopp leen ñàkk ñëw ci gàmmu gi ci yow du jaadu. yént yàlla Muhammad ne ca bopp ba kon nag gàmmu gii du ko gàmm gu kenn war a absente ñëpp a war a ñëw teewal si ñii ñu ko tuddee dunduñu waaye ñi leen sopp a ngi dund kenn ku ne ñëw ne man maa leen teewal maa fi teewal unit bi maa fi teewal Mariam maa fi teewal kii maa fi teewal kii ma di ko wax nag ci équipe bii ma àndal nga xam ne ñoom ñoo jiitu ma topp ci lu ñu jaaxle laaj ma ma wax leen muy oustaz Mouhamed mbay ak oustaz Grand Serigne ak Maas ak Pape Gueye mi coordinateur bi ñoom daam Sakho ak Oustaz Harouna ak ñi ci des ñëpp bari nañu kenn mënu leen a lim tabaarakallaahu ñun ñii rek ñoo fi nekkandi ak Oustaz chauffeur mu nga nële ñoom rek ñoo fi nekkandi bu ko defee nag sant leen yéen ji ci ngeen bokk Maxtaar ci la bokk Satini ci la bokk Sey Latir ci la bokk ñoom ñëpp ci la ñu bokk ñu sant leen gërëm leen kon ñu ngi ko doon defee waxtaan yu Thiès fii ci rajo Sud FM bu Thiès. di suñu rajo suñu directeur général di Baye Omar Gueye di suñu xarit di suñu soppe ki ñu jiite fii di suñu directeur di Kamal Sidibé ay ceekoon nag rendez bi le 13 octobre ngeen jullee si fa tàkkusaan ca promenade ba gàmmoo la amul nag ñëw naan ma Iran yeewi ma dafa am fu ma jëm foofu daal ku fa ñëw te bëgg sa aajo fajo ñëwal ñaan ci barki ñii ñu ko tuddee man moom xaw ma daara aw ma baatin aw ma secret waaye ñii lañ ko tuddee waaw seeni tur a ngi nii ñii lañu tuddee bés bi yonent bi ñi ñi ma lim ak keneen raxu leen nag benn borom alal bokk benn mbindeef bokk ci ñii don nga ko moom ko sopp ñëwal jeex na ku ne am nga ci wàll ay ca asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.